mbalit mi jugee oh, salaamaaleykum maa ngi nuyu waa quartier bi yëpp. yi nga xamante ni maa ngi nekk fii sama gox Médina Koursou ginnaaw raay di nuyu waa gox bi yëpp vraiment di leen chaque jour waaw maa ngi tudd Ndeye Fanta Ngom responsable politique APR jigéenu Mansour Faye nekkal ko fii ci terrain bi ak euh, DG Pa Ibrahima Faye ñu nekk ci suñu base am fi lu ñu naqadi torop moo tax tey ñu mobiliser wu ak euh, militantes yi ak militants yi pour que ñu ñëw waxtaan ak askan wi loolu moom moo ñu fi indi tey. waaw déclaration bi lenn rek la parce que keroog bi mu taw bi méttee ba métti population bi dañu jóg dal ci kaw autorité yi.

parce que buñu waxé à chaque fois dañ nan monsieur le maire liggéeyu fi dara DG liggéeyu fi dara mais c'est faux parce que li ñu mën yépp ñu ngi koy def deseg sen ngor buñu ñëwé ci si base bi responsable yi fi nek ñu ñëw defal leen ay régal defal leen ay rigo defal leen li nga xamanteni mo war ci jumtukaayu gox bi leeral ka ba mu leer naññi fi nga xamanteni moy koñ bi lu nek la fi daan am dañ daan ray fi nit dañ fa ñëw viole fi ay jigen lu nek dañ daan fi def té loolu yépp jeex na fi à cause de monsieur le maire Mansour Faye donc su ñëwé defal quartier bi ay régal ñu ñëw di fi sotti ay ndoxu jeun ay ndoxu foos ay ndox yu bon yi nga xam ne day xeeñ ci biir këru euh, waajur yi mu naqadi leen torop boo cuuraayee du xeeñ boo parfumé du xeeñ te nga nekk say waa kër ci biir kër gi neexul kenn ku ci nekk da nga xool loolu moo war a tax borom kër yi nga xam ne dafa jege régal yi ñuy fatt régal yi xeex bi mel ne tullay mali ci base bi wax ci mel ne tullay mali ci base bi ñu ñëw fatt ma parce que man maa fi toggal monsieur le maire Mansour loolu moom moo tax ah, a a

oto police jógee daa fi sotti ndox doo ko fi sotti di nga def ni di nga def naa loolu sonn nañ ci en plus que li waral loolu mooy dañu bëgg monsieur le maire Mansour Faye jël ay garde yu mat sëkk ci quartier bi bu jógee mu def fi ñi nga xamante ni dañuy marqué ni ñi ñi fi sotti ndoxu jën ndoxu foos ndoxu duus ñu jël leen déclaré leen ñu marqué leen parce que naafiq ñoo nekk ci koñ bi golo di bay baa bindu dundee ñii di defar ñuy yàq koñ bi kenn mënu leen defar Mansour Faye dafa defar ba dee wuñ ko askan bi nag ñoo war a jàppale seen bopp seen bopp parce gox bi ña dëkk ñoo ko mën a defar soo defaree sa kër defar sa néeg defar mbedd bi muy développement mais boo waxee ñun la mbedd bi mbeddum buur la nga wax ñu saaga la nga wax ñu xeex ak naa fekki ni waxul dëgg ñenn yoonam nekku ci moo fi war a jeex léegi nag soo defee lu baax normal defoo lu baax yoon ñëpp la fi nekkal te mbedd mi ñun ñëpp ñun ñoo ko moom parce que bu ñu feebaree ku nekk daa dugg sa biir kër moom ni ka na nga def ndax yaa ngi tane wala tane woo te

loolu lañ bëgg sama kàddu gu mujj mooy maa ngi gërëm quartier bi yëpp parce que quartier boo xamante ne nag mu dëgg dee dëgg rek ni ñu fi engagé woo bari na ñoo xam ne engagé wuñ ko ci yeneen quartier yi parce que quartier boo gaaree kaar mu fees dell soo leen woowee ñu daw lu mu naaj naaj lu mu guddi guddi macha allah soo leen woowee ñu taxaw ñu daal di jóg ñoom ñëpp taxaw carrément ni yow ñi sa ginnaaw kon devant Ndeye fantangom derrière Ndeye fantangom à gauche à droite lolu engagement bu metti la kon dañ ma sas kon nak école Boubacar Diop aussi ñu jappalé len parce que école ñi ngi té mi ngi fess del ak ndox ñi ngi wax monsieur le maire Mansour Faye jigéenam mi ngi koy wo ci goxam bi mu taxaw ma jàppale ñi nak néew doole nañ son nañ torop so xëyee suba ñi ngi yor sen saako di jaay ñi ngi yor sen table ñi ngi yor sen jeun bourse familiale yi développement social bi mais jour que ni nga Pa Ibrahima fay li nga war a def bi nga koy def parce que barki Dembo Ndiaye la jóge si jàkk ji te benn autorité mosu fi dugg boo ne laylatu xadar mi fi tabaski jëng nañu ñëpp bu dul dëgg nañu wax lu nekk la fiy def lu mu ma joxe joxe naa ko luñ ma wax loo wax naa ko luñ ma def loo def naa ko li ci des nag mooy ñu jël quartier bi en charge ñu jàppale ma dooleel ma valeureusement loolu laa bëgg ñu def ko parce que dalee na quartier bi fi nekk dafa xaw a sori bu fii doon lakk bala ñu koy woo ba mu ñëw ñëpp daañu raaf parce jooytu nañ ko ba mëntuñ ko jooy moo waral déclaration bi tey. ndox mi macha allah ndox mi sonal nañu sonal goo xamante ne kenn bu fa jéggi na dayo gis nga man mi ngay wax samay lal sama saako ceeb mu nga nee ma génn saani mu nga xasaw ku ndax dafa dugg ci ndox mi samay teleeg yëpp danoo dugg ci ndox mi ñun fee kër yanu dendal ñun ñëpp a fees dell ak ndox gis nga kër may mun a gii borom dafa génn sax nekkatu fi. ñoo ki bi nak wa maire bi ñoo wara ñew dimbali ndu te yalla rek tax barki dem amna ben ben ki liggey katu maire bo xamanteni dama doon wax ak mom sax ndax parce que dafa ñew moy bi ni tonni balit mo mu gis ko ma sëpp ci scout terrasse bi mu ne ma yeen yeena wara ki ndax kenn fi tour balit mané ko ñun ñu lolu ndaxte tey koo ne ko bu fi tuur mu ne la lu tax nga ne bu fi tuur fa bare ay dugal la foo xamante ne waroo a nekk ñun sunu yoon nekkul ci loolu bu ngeen bëggee loolu yéen ay dikk bu ngeen jëlee jëlee ñaar ca mairie ba teg fee kenn teg fee teg fee kenn ku fi tuur mu waxantee ñoom mu ne ma ku fi tuur danga koy woo dangay woo ëtt ma ne ko duma woo kenn parce que nek fi di lidianti ay mbalit ak di wo auto police du sama liggéey mhm. sama liggéey suma xeye dama tay dem mais lolou du man du sama liggéey mhm. barki dem bo njaay ñun suñu kër dafa fess del mhm. samay doom diko as diko beut di eh, ñew ci canal bi am ñu taxaw fi ne kenn duko beut mu ñew ci canal bi fi la nek di xex ba am ku wo auto police auto police ñew fi ci koñ bi koñ bi fess del fekkuma fi dafa fekk ma genn taman man sama waa sunu keur mo fess del luma juromi fan ci kaw terrasse bi lañuy ñuy fa lañuy lek fa lañuy ñuy fa lañuy ñuy lepp ndax keur gu fess del ak ndox ba paré ñu man ci digba la seus digba dañ caa war def lampe dañ fa war def lampe tay amna heure yo xamantene soko joggé ba jëm digba bala ngay egg am ñu la dogaale barki Demba Ndiaye am lu ñu nu dogaale fi nangu seeni i nangu seen yépp dem yobbu ko. fii fii dig bi ci boppam moo war a am lamp ñun ñi nekk ci kaw dig bi dañuy toog ba xaaju guddi ñu dégg yuuxu jóg taxaw ci kaw dig bi ñooña daw kuy tux yamba fa ngay tuxe kuy cagatu fa ngay cagatoo kuy def leneen fa ngay def ñun ñu sës ci dig bi ñun ñoo mën a seede lool ñuy ñaan nag ñuy ñaan nag ginnaaw yàlla nday fanta moom la ñu jiital ci sunu kanam léegi nday fanta moom la ñu woo pour mu ñaanal ñu Moussa le eh, maire Moussa le maire ñi ngi koy ñaan mhm. ngir yalla mu gestu mi dina ko su ginaaw raay mhm. suñu côté bokku nday Fanta nday Fanta nak ñu ngi koy gëreum di ko sant parce que lepp lu jog lo xamantene nakar la ci koñ bi doy jog and ko ak ñun ba mu jeex tàgg mhm. wa ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu ñi fi teew ma sha allah di waa ginnaaw raay ma ngi leen di nuyu bu baax di leen sante di nuyu sama sœur nday Fanta mi nga xamantene tay ginaaw yalla mo waral li ñu ko ci encourager te diko gëreum man ak mom nak ño fi nekk man Fama Anne laa tudd présidente fédération ginnaaw raay damay politique dafay politique mhm. mais yàlla dafa def ni xëy na kenn ku ne am nga koo àndal mais ñi ñu àndal tey bu taxawaayu ginnaaw raay jotee kenn ku ne dangay bàyyi ka nga àndal jàpp ci ginnaaw raay tey moo waral tey ñu àndandoo ñu taxawaay fii mhm. man Ahmed Fall Braya laa àndal moom mu ànd ak Mansour Faye mais def ci la ak sotti si mhm. parce que gox bi moo ñu ñor kon tey jii tey bu ñu taxawee fii tey waxu gox bi rek lañ fiy wax politique la ñuy jël sànni ko fële man li ma ñor man mooy ginnaaw raay gi ñu def ba jàppale leen kër yi fees na ak ndox mbedd yi fees na ak ndox mbalit meeg ndox mi jaxasoo nañu kenn xamul looy nooyi bu sibir bi ñëwee xale yi fi mu nekk nii da ngay ngay da ngay sax am da ngay jaaxle parce que gisoo foo leen di faja parce que sibir bi mënoo ci mucc ndax salte bi ak ndox mi bu ñu àndee fan la xale yi di wéree kër yi mi ngi noonu comme ni ko sama naatango bi waxee rek di sama sœur ñun ñëpp ñu bokk dëkk ci koñ bi sunuy euh, xarit bi tamit di màggat ñoom ñëpp seen kër yaa ngi fees macha allah mais nag am na ñoo xamante ne nañ seen i kër yi ngeen filmé yeen gis ngeen ka waaye ñoo ngi wo Mansour fay di wo Aminata Gueye di wo Pa Ibrahima fay di wo sama leader timit Ahmed Fall Baraye ndax machallah allah ñep dañu bëgg ndar te defar ndar rek mo leen tax a kon wa ginaaw raay wo nañ leen nañ ñew jappalé leen lépp lu nu am nañ ñu ko andil buy gravaay nañ ko andi buy suuf nañ ko andi bu ñu mënee def social ci biir kër gi nañ leen defal nit ñi social ndax ay néew doole fi nekk kon nañ leen jàppale nañ jàppale new doole yi xool xale yu ndaw yii ñu toppatoo leen ni ko suñu naataango yi waxee nañ leeral koñ yi nañ leeral koñ yi parce que koñ yi fii ñeme woo sa génn guddi ñeme woo yónni sa doom guddi ndax lamp yi tàkkuñu kooku ñu ngi koy dis monsieur le maire Mansour Faye suñu xarit Ndeye Fanta yónni nañ la ci Mansour Faye uh-huh. moom mooy monsieur le maire tey ji say bala fii kenn di def dara tey ci moom lay jaar kon woo nañ ko nañu déglu te nañu wuyu monsieur maire ñoom ñëpp ñu jóg taxaw parce que tey ji match bi moo tax jeunesse bi ñu génn ñu defar quartier bi parce que nag ndimbal na ci fekk loxoy borom bu ne monsieur maire monsieur maire ñun tamit nañ jël suñu engagement bopp ba bu fi andee ay jumtukaay ñu war a a taxaw defar ka ba nga xamante ne bu ëllëgee tax defar gi neex ñe ma ngi wo ñepp nak askan wi yëpp bayiwuma kenn goor ak jigen ku nekk ci parti bi ak benen parti dañu woo développement ñu affaire politique pour gox bi ñu ñëw ko aar ka ndaxte waruñu ko dundal waruñu ko dundé dañ ko wara dundal ta donc quartier bi dañ koy dundé mais dundaluñ ko parce que liñ fi gis war vraiment doyna wa trop trop trop trop vraiment ma ngi lancer appel ñepp di leen remercier bu baaxa baaxa baax am nañ contane moto pompe bi aussi ñi ngi euh, wax euh, Amir fa Braye aussi wax deug yalla comme euh, jigéen mi ngi sama wet ñi ngi koy wo di wo ñepp xébuñu kenn di wax DG Pa Ibrahima gasoil bi ñëw na essence bi ñëw na moté pompe yi ñu ngi ñëw mais des na bu baax a baax a baax na yokku nit buy def da nga naan ko yokkal parce que boo nekk defoo mu gis boppam waaye buy def da nga gis ni def na danga naan yokkal ñu ngi koy wax nag mu yokkal ñu bu baax a baax a baax a baax ci quartier bi gën ma valoriser gën ñu ma taxawu gën ñu jàppale parce que loolu rek nañu soxla ci ñoom voilà jërëjëf waaye wasalaam merci beaucoup. deux millions de personnes meurent par de la pollution